militantisme bi nga dugg noonu yëpp en 94 bi ñuy dissoudre Moustarchidine ministre de l'intérieur ji bokk moo ko dissoudre par acte administratif donc dañuy dissoudre ay organisation man soor maa yéen te defe naa ne yéen ci loolu parce que pour man yéen a ngi ci double mouvement qui intègre des négociations secrètes depuis toujours yéen a ngi négocier ak gars yi di waxtaan. ak kan ak kan non ak kan. ak waa nguuru Macky Sall. ñu ngi nit ñi ngi dem ci Macky Sall ñu ana Atepa Goudiaby c'est pas évident. mais ne soore wala payti. d'accord di xaar. non non ñu nit Ousmane Sonko. Ah, waaw d'accord léegi maa xam nga respecté leen. xoolal Thierno c'est kilifa kilifa kilifa dégg naa Thierno dégg naa Thierno dégg naa dégg naa may la mbay gi mu ñëw oui oui. xam nga bu doon dañuy négocier ak Macky Sall. tey du génn di accuser Ousmane Sonko de terrorisme islamiste. defe naa ni boo parce que fi mu yegg. mënatul dellu ginnaaw Ousmane Sonko dafa ni force obscure bi ñu ko waxee c'est pas Pastef moo weddi gendarmerie moo génn le 4 avril. c'est waa euh, gendarmerie ak waa armée le 4 avril les vidéos sont là. weddi ñu ne ñoom de ku gis ko occulte na leen ko wan. c'est ça par ironiquement des chefs de li ma lay wax c'est le 4 avril. avec canaux de renseignement dama ni. dans la su fekkente ni président de la république. dafa am ñoo xamante ni ñu ngi fii ci réew mi gën a informer notre armée et notre gendarmerie. non y' a problème non y' problème. léegi bàyyi ko mu ñëw ah donc dama ko jox benn cas en 89 ci guerre Abdou Diouf bi. Claude Silberzang. voilà jël service extérieur français pardon ma jeexal foofu. moo informé Abdou Diouf ne Saddam Hussein moo nekk. léegi bàyyi bëgg naa déglu Bachir li ma la bëgg a wax. waaw Thierno il faut nga boole ñeneen ñi waay s'il am non xaar maa ñëw xas waxuma la lu la bul tiit du ma wax ci dara sam xëy na samedi àngalaw me yi ngay s'il vous plaît dama ne dama lu may tiit ci yow non dama defoon ndax dama am lu may tiit ci yow voilà na leer ok jeex na li ma bëgg a wax foofu may leen gan gi waay dama bëgg nga def analyse maa ngi noppi nga ne yow ak Basir Fafana non non li nga xam fi may ah. dama ni yéen comme que ah. observateur ngeen di ngeen def analyse science politique ci lan moo tax actuellement li may wax xam nga nga ni bu ñu wootee manifestation kenn du génn man la da ngay jël ñaari cas pour nga comprendre ce qui se passe ak Pastef gis nga boo jëlee Algérie gis nga état ñun dañoo yegg ak moom foo xam ne ñaari voie lañ am ci combat bi ñu doon def ak moom moo tax man la gat le gat gatsa bi ngeen di coow ça n'a jamais une connotation militaire wala confrontation physique parce que bu boobaa dafa fekk ñu teg benn organisation parallèle boo xam ni day attaqué ji wala ñu jënd ay armes mm. da ngay jël dañoo yegg foo xam ni da ngay jël ñaari cas. Algérie da ngay jël Algérie ak Turquie may ma rek même si après bu ñu ma dugal nag ci af islamiste parce que cas yooyu dafa mën a illustrer Algérie bi ñu demee ba nangu ba xoqatal fils ba mu gagné élection municipale ba gagné ba ñu xam ni day dem bu demee deuxième tour day gagné les législatives ñu tas ko choix bi mu am xam nga mooy lan mooy continuer la guerre civile daal di nekk un mouvement terroriste di xeex armé loolu c'est vrai groupe islamique armé nga dem Turquie la même situation am parti prospérité parti vertu bu Necmettin Erbakan Erbakan biñ ko dissoudre amoon nañ choix ñoom it ni nañ leen jël comme ni fils def déedéet dañoo créé waat beneen parti ñoom Recep Tayyip Erdogan dissoudre nañ leen ñaata yoon mu conquérir préférer conquérir le pouvoir par des voies démocratiques foofu la Pastef toll en 2008 parti Erdogan alors que ñoom ñoo nekk au pouvoir mais dem nañ yóbbu nañ leen pour dissoudre leen deux d'une voix juge constitutionnel yi onze députés onze lañ sept kese la si si ñoo voté le septième bu voté woon le parti au pouvoir sax dañ koy dissoudre donc et depuis 2002 kan moo nekk au pouvoir c'est Erdogan moo tax ma ne la ñun fi ñu egg ak état Sénégal poussé wu ñu jëm ci fils di xeex ak moom dañoo intelligent dañoo xam ni dinañ ko gagner sur les par des voies démocratiques parce que nërmeel Sénégal jóg toxu ñoo jóg te sénégalais comme que xam nañ y a une échéance te gëm nañ ni la meilleure arme mooy seen carte. Hmm. te xaaral ba parrainage yi génn. Hmm. di nga di nga fi gis Pastef tegal la peut-être 3 millions de parrainage Pastef dinaa la tegal 3 millions de parrainage nga soog a xam ndax dañ ko lâché wala Amadou Ba mii ñu jël. nga xam ni bu ko support état supporté wul ànd ak moom gunge ko di toroxal ma Malick Gakou ci àll bi di sonal opposant yépp ni kenn du marche wala kenn def daal nga xool ndax Amadou Ba mën na jël troisième ci élection yi. Hmm. donc mani la bu ñu. élection yi am leen yéen romb leen un million cent dix mille voix yéegi askan bi yëpp réuni. non man man man man man man. Amadou Amadou amadu non Amadou Ba ah, Amadou man man man dama jàpp ni tu tu te sous-estimes sax quoi.

taw yàlla la boobu bon c'était boobu ñu ngi soog a commencé ñu ngi soog a commencé rap 96 xam nga man maa leen doon dajale suma daal ñun yaramu neen bi ñu ko bàyyee yàggul c'est c'est 2000 2014 ba 2014 2015 bi ñu leen yóbbee 2STV ñu ne sol comment nga muti ay débardeur Ibra Kese Ibra ah, Kese am biir ne ma waay yàlla na ngeen génne ay CD di tukki di dem fu ne ci àdduna bi ma ne ko waaye Ibra amin waaye dof bi xool ma xam naa peut-être xam ni da ci jàpp ni dama kii mu ne ma xanaa xamuloo li yàlla di maye. Mm. avion ci gën a tuuti. Mm. mais Thierno il faut reconnaître que Ousmane Sonko xaw ma yan guddi de. Mm-hmm. guddi yu njëkk ya li ko yàlla may ci homme politique mayu ko woon Ablaye Wade mi ñuy wax ak képp kuñ koy tëkkaleel guddi yi ñu ne li ko yàlla may ci politique mayu ko kenn. d'accord guddi yi ñu jëm. guddi ya ñu jëm. Hmm. li ko yàlla may ci politique dootu ko mayaat. d'accord parce man maa la ko wax bindal. oui sur la question de la dissolution interpellation yi ak ki maa ngi wax sànq li ci Cheikh Yérim wax. ni génn nañ ko ci ràjjee nañ ko génn. non non man moom de euh, l' interview de Macky Sall. bon man damay xool forme soog a dugg ci fond. Hmm. xam nga c' vrai man bu ma sañoon ah. un de tous nos hommes politiques qui qu'il bu ñuy wax ñuy wax avec nos médias locaux. waaw loolu moom ma. sur la forme sur la forme. Mm-hmm. mais des fois da ngay euh, parce que mës naa di ci waxtaan ak benn conseil Macky Sall il était il s'occupait de ça comme. Mm. après bon benn jour mu def benn interview ma ne ko saa pour pourquoi yéen ngeen dem interview France 24 Le Monde et cetera mu ne ma en réalité ce qu'on cherche c'est une chose boo waxee ak Walfadjri wala wax ak TFM wala wax ak Sud FM. sénégalo sénégalais yi rek lay intéressé on cherche aussi bien ñii fii que public bële. Mm. donc objectif boobu lañu ci am. ma ne ko ah ça aussi c'est vrai mais primeur bi man fii laa ko bëgg. donc je comprends lu tax ñi dem dans certains médias parce que porté bu muy am moo waral loolu. Mm. loolu mooy benn. maintenant quand tu viens au contenu. tu ne peux avoir le président de la République sans lui parler de l'actualité reste sous-régionale oui. autour du Niger lu mu ci wax nag moo di ni si lu ma comprendre man moo di ni on cherche toujours à mettre une pression sur basum parce que fii lañ ko waxee woon je pense pas Assane ma ne lan l'ère Bazoum est tournée lenn moo des léegi nañu xool comment aller vers une transition entre la junte et la CEDEAO donc foofu lañ toll or man ba tey jii nii yi ñuy wax ni yëpp ay nu mu tuddati option mi sur la table yooyu yëpp c'est pour mettre la pression c'est pour pëndal kese la waaw pëndal kese laa ko jàppee parce que au fond au fond ce qui les intéresse c'est que waa CEDEAO waa waa junte militaire bi ne waa CEDEAO kaale ñu toog ñu waxtaan pour une transition sur une durée de la transition te boo seetloo si biir interview sax wax na ko parce que mu ngi naan lëm le Mali s'était engagé sur une période de transition ouais. qu'ils parce que tey xam nga wax na loolu kon ça dire que ñoom loolu moo